mais mais yow xam nga xam nga xam nga mais que ñu naan ñoom naa koy. non non jaay doole quoi. moom laa lay jox sa waay. Ah. Ah. waaw. ah. waaw xaw ma tëj na. waaw waaw tëjal bi. kon man kay dañuy wax lu leer nañ. tëjal bi laa la eh. foofu man non ah, non dañuy wax rek. yow amoo jom nag amoo jom da nga fàtte daw da nga fàtte bii nii daw. damaa ñëw dama la baal wala. waaw kon waaye damaa soxla nga baal ma. soxla ma nga baal ma de. damay wax rek daaw fi nga ñëw maas ma kuura. maas ma kuura dama jël ren boo ko defaatoon ma dolliwaat ko. non du question jaay doon mënoo ma jaay doon da ngaa ñëw da ngay ñëw. amoo jom loola amoo jom boo mënu ma saaga. doo ma déplacé ren bii ko ñamal boo moytu duñ ko ñamal. waaw buntu bi waaw buntu bi gaañ waaye loolu. yow yow non non bàyyi loolu bàyyi loolu gaañ. non non bàyyi loolu gaañ bàyyi loolu bàyyi loolu bul ma jëm a jaay doole quoi. bàyyi loo gars bàyyi loo bàyyi loo bu ma jaayee doole yow kër jaayee ah yow kër sax bàyyi doole jaayee bu jaayee bàyyi loolu waaye bàyyi loolu jaayee sax bi nga ñëw di ma jaay doole quoi non bàyyi loolu non mais bul si jàll gars da ngay taxaw fee man mënoo mënoo waaw dañuy waxtaan non dañuy waxtaan dañuy waxtaan amul waxtaan la war nañu bu yàgg non mais kii lu muy def nii loolu du mu ñuy di ma jaay sor sor sor jëndal waaw taxawal rek lañuy wax. waaw jëndal ñu on a pas trop tard waaw ñu demaale demaale yow yaay jënd non mais moom moo ma dégluwul meer moo ma dégluwul meer dafa yaay joone na carrément ah, ah, ah, ah déedéet meer mais xool lu may def daaw fi la ñëw maas ma courant yàlla xam na ko dafa ñëw maas ma courant dama jéem a dóor waaw mais mais bu ñuy wax tamit moom tam day déglu lu ma koy wax saa yi. waaw kay romb day romb man tam ma wut. non ndax xaalis man xaalis maa koy liggéey. merci. Ardo lu mu wax rek déjà il a tout dit donc euh, Ardo wax na lépp euh, deux fois def nañ ma ko sama boutique daaw ren aussi ñëwaat nañ def ma même chose ma lii nag mënatuma toog di ko seetaan parce am na nu muy demee yéen gisoo leen xamoo leen léegi na am na nu muy demee gis ngeen ko xam ngeen nu mu fa demee léegi donc euh, juste juste yi def si liggéeyam parce que man lu ma mën tooñ nañ ma yóbbu naa ko si yoon déposé naa plainte depuis le 24 bu ñu gën a donc ba léegi un mois presque donc euh, xam nga loolu tamit euh, ñu bëri ñu ngi sama ginaaw di ma laaj affaire bi fu mu toll fu mu toll diire na diire boo xamante ne léegi donc euh, man mii am naa instant avocat avant aw moon avocat sama avocat maître Khouraïssa Ba donc moom tam mu ngi def liggéeyam juste affaire yi ñu ngi koy ñaaw ñaawlu mooy lu dal Arona ñun ñëpp la dal en tant que citoyen boo amee lu lay nakari sa dëkk vraiment dañ si war a jóg taxaw di ko xeex jóguñu pour yàq dëkk bi di sànni ay xeer di def leneen defuñu ko dañ ñu tooñ yóbbu ko si yoon yoon tamit na def liggéeyam jaarale ko si yoon ñu bañ a. est-ce que am nga euh, euh, bien bien am naa si yaakaar parce que yoon bi dafa nekkal fii pour ñun citoyen yoon ñëpp la fi nekkal nekkalul autorité wala nekkalul baadoola bi fee pour ñun ñëpp la pour ñun ñëpp pour baadoola bi ko keneen ki ak keneen am na si yaakaar 100 pour cent parce que man tooñu ma tiitu ma daw ma. duñ ma def laa génn wax gis ngeen ko sama tànk lañu yàq daaw matrak lañ si teg nooy demee si boutique di jël xaalis nga yóbbu ay arme jaayu ma yamba jaayu ma naga sudul loolu légal laay jaay vraiment loolu tamit war nañ si mën a wax quoi donc parce que loolu ma wax métti na ma jóguñu pour yàq dëkk bi dañuy jóg pour yoon la ñu woote donc si yoon lañ leen wuy si ñun tamit en fait waaw lu ma wax ba amul question loolu la woon. bon moom ba léegi fu misaal euh, lu la si jaaxal daanaka noonu la ma jaaxalee fu mu toll depuis le 24 ba léegi bu ñu génnee nii le euh, le 19 euh, le la le 19 19 lañ ñëwoon foofu mercredi lañ ñëwoon si man ñu xuloo ba léegi le 24 la amoon 3 jours maa ngi jaabante pour déposer plainte dakaar waxuma la région Dakar 3 jours pour déposer plainte si biir Dakar amagoo ku la koy jëlal mais loolu rek musiba la en tant que citoyen 3 jours pour déposer une plainte ndax lan ndax dafa am ay autorités dedans une policier benn ASP loolu kese non donc c'est euh, loolu moom vraiment euh, man bu koy wax sax sama xol mënu ma ko yeggale ko bu amaatul beneen question bu ngi doon af. waaw waaw juste noonu la fa demee. demoon naa wuy deux fois lañ ma ñëloon jëw si euh, même jour deux fois lañ indiwoon euh, convocation boo ma demee après dafa ne woon ma ne ma ne lu tax nga woo ma deux fois genre yi demee noonu man maa la yóbbu si yoon waroo leen ma convoqué dañoo bëggoon def euh, ngeen waxtaan ak gars yi ñëwoon nañ fii waa mairie bi pour ngeen ma laaj la lan moo xew ñu wax la nga wax ma ne d'accord man toog expliqué waa ji ma ne nii la fa demee ma bind PV bi après bu mu ko bindee bon ma demaat ñu ne ma léegi enquête bi ñoom ñoo koy def ba léegi na maa ngi si ñëpp ñu ngi si ñu bari tamit euh, sama mbokk boutique association yi ma lancé leen benn appel euh, li ñu bëgg def noonu li ngeen bëgg a def noonu àndaguma si pour tëj boutique yi 3 jours ñu ngi ma koy demandé pour 3 jours ñu tëj boutique yi ma xalaat baadoole yi ñun baadoole yi ñoo siy sonn rek du question man tooñ nañ ma gaañ nañ ma euh, waruma taxaw tamit di di di toroxal yeneen yeneen citoyen ay yeneen yeneen nit fi nekk si biir Dakar loolu tam monsieur wala indi ma ne léegi gannaaw yóbbu na def seen liggéey donc am naa si donc donc daal mën nañu mu ngi ci loxo yoon. mu ngi si loxo yoon depuis le 24. Ah, depuis le demoon naa déposé aw moon avocat mais euh, donc suñu asili si jëlee nañ ma avocat mooy ñoom Mollah Morgun euh, ñoo ma fayal avocat donc. bii mooy deuxième fois bi première fois bi kañ la woon. loolu daaw la woon ah 2018 2018 ah 2019 waaw 2019. non sama boutique la ñu fekk ñëw laajte patate euh, jour boobu tamit euh, ma génnee lu ma ma jox leen waa ji ne noonu du ko jël après mu tëj boutique bi dese amoon si biir euh, sàcc mooy li ngeen gis noonu jot ngeen ko gis taaw ma ne ko dama ko yóbbu si yoon mu ne aw ma si moom preuve ma ne dama la yóbbu police mu ne police boo ma yóbbu dama lay fekk foofu jaar fa bon mënu ma ko nettali fii donc mu ne léegi ma ne ko donc nee nga aw ma si ma ne affaire du ma mu sedd ma toog deux jours trois jours sama bi commencé néewi ma dem si hôpital di jaabante di jaabante di ko faj un mois après finalement ñu bindal ma naa toog noppalu mënatuma liggéey ma toog un mois liggéeyu ma loolu yi après dinaa leen ko woon bu fi ngeen gis ko am na ñu ko gis am na ñu ko gisagul donc mu ngi noonu looloo passé woon daaw daaw après mujjul fenn en fait. que yow sa morom yi nga xam ne ñoo waaw waaw am na ñu bëri ñu ñëw di réclamer comme ça carte de boutique les parce que dañ la war a respecté ñu ngi leen di fayloo impôt loo xamante ne duñu am récit te loolu noonu xaalis boobu noonu dugg si état te man lu combat bu ñu nekkee nii mooy Ardo mooy man suñu combat pour ñëpp xaalis boobu pour ñu ta joxuñu leen sans récit dañu bëgg xaalis bi dem niveau mu yegg si légal yoo xamante da am ay kayit yi leer nañ te en plus que lu mën a mën a wax gars yi rek bu ñuy ñëw di laajte nañ ko teg si yoon respect xool ngeen du koy waxee noonu en tant que quelqu'un koo xamante ne moom jaar na si koo xamante ne n'importe quel nit boo a loolu la am lu ma wax na trop ah ñëpp la métti du man gis naa tamit seen taxawaay yéen ñëpp ah bon di leen si naan euh, merci beaucoup